violence bi nemmeekuwaat nañ ko ci biir nawetaan yi week bi ñu weesu ay jàmmarlu amoon ci stade municipal bu Parcelles Assainies ci diggante supporteru ASC Jant bi ak ay ASC Entente ñaari équipe yu nekk ci zone 8B bu Parcelles Assainies ay simili rek moo desoon match bi jeex ñaari équipe bu Témbo ku ci nekk dugal ñaari but ay supporters yu mer ba futtu ñoo wàcc ci pelouse bi daal di yàqate stade bi mu doon jëf joo xam ni nag ñenn ci askan wi yi waa ca Parcelles ñaawlu nañ ko bu baax. pari yi ñuy parier ci biir euh, stade yi. mooy yàq mooy yàq euh, dynamique navétane te liñ ci gën a métti nag liñ ci gën a métti ay mouvement navétane li nga xam ne foo des activités de vacances ah ñëw yàqal ñu suñu stade li nga xam ne ne vraiment c'est à coût presque mën naa ne presque c'est un milliard ah ñu yàqal ko nii nii nii nii nii nii pour des activités navétanes franchement ñu ngi koy ñaawlu torop torop torop torop su nag ay acteurs yu nekk ci biir nawetaan bi di yëngu ci wàllu fair play yi jàpp ne yi la jàmmarloo lu ñu mënoon moytandiku la mënoon na ñàkk mais dañu nangu ndogal rek xam ne tamit dafa ñëw nañ ko nangu xool évaluer li yàqu ñu defaraat ko mais aussi tamit xool nan la ñu améliorer ba nga xam ne dootul gaaw amaat. manque de communication am na ci euh, mais aussi tamit trop de laisser aller am na ci. waaw ci man loolu bokk na ci li koy engendrer trop de laisser aller ak manque de communication donc euh, fekk appliqué wuñu texte yooyu respecté ko je ne pense pas que ñu mën a gaaw a jóge ci ci genre yi. waaye ñu teg ci ne ñi nga xam ne ñoo def ñawteef yi saa su ne yoon war na leen a topp. que chacun prenne ses responsabilités ku ci nekk ñoom en tant que voilà donc seen donc ASC et j'interpelle aussi tamit la zone 8B à prendre ses responsabilités parce que il faut qu'on sanctionne on doit sanctionner bu ñu sanctionné keneen da koy defaat aussi tamit retourner aussi wala donc à zéro donc man loolu laa ñaan ñu sanctionner. qu'on sanctionne parce que stade bii nii donc kenn kenn moomu ko ñëpp ko bokk bu ñu ko yàqee ñoom ñooy ñàkk. gannaaw jàmmarloo yi bu Dakar jël na ndogal ngir dakkal lépp luy nawetaan ci biir département bi ci loolu yónnee na bataaxal ñi nga xam ne ñooy jiite zone yi ngir xamal leen ndogal bi nga xam ne jël nañ ko.